samay abonné contre bu baax si en bu leen di fàtte abonné wu ñu continuer leen di aimer di abonné wu ci sen YouTube bi may ko dolé ma ngi ñëw té ci lundi mu nekk championnat Angleterre diggante Crystal Palace ak Liverpool Liverpool nak mo dalal Crystal Palace ci kërëm mu nekk match bu difficile ci Liverpool Liverpool té tamé un but partout la def kan mo njëkk a jaha mo moo après Luis Diaz ñëw égaliser mu nekk un but partout Liverpool ñu ngi ci best forme mais Liverpool ñu ngi ci problème ndax lii mooy march matchs Liverpool di ko tegle def niil mu ngi leen di soog a daal dix ans lii musul daal Liverpool mu ngi koy soog a daal mu nekk lu métti si ñoom mais euh, équipe bu mag du dee à tout moment mun nañu yeewaat moom lañ leen indi loon ci championnat Angleterre bu ñu fa jógee dañuy. di dañuy dem ci championnat Espagne diggante Getafe ak. Atlético Madrid Getafe nag moo dalal Atlético Madrid ci këram Atlético Madrid dóor ko trois bisa à mu nekk match bu difficile ci Getafe wane na pousse nañu jéem nañu mettee Atlético Madrid dafa nekk ci forme dafa ñëw pour fokkati 3 points mu fokkati 3 points mu gagné 3